xibaar naan ñu Alassane Dramane Ouattara jamono ji nag daan jox carte blanche ki nga xam ne mooy Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé ngir nag ñu daal di ñibbi fi nga xam ne mooy Côte d'Ivoire est-ce que nga xam ne Alassane Dramane Ouattara doxe na ko ak Laurent Gbagbo ndax njiitu mi di président Macky dina ko doxalee ak Karim Wade ndax Macky moo fi taxaw di wax ne unité nationale yéen a kaay gii di Vox Populi forum justiciable ñoom nag jamono ji ñoo ngi sàkku nga xam ne mooy Hissène Habré lu toll a faju maanaam grâce yooyu di sëkkatal di teg pression ñi nga xam ne ñooy entrepreneur nga xam ne ñoom lañ tabaxloo ay infrastructure de pêche yéen a kaay gi di président Macky Sall nee na lu toll ci fanweer ak juróom ci ay milliards dina ko génne tabax ci ay hôtel de ville a kaay ak askan wi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall mañ ko doon def ci week bi yekk na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Macky Sall nee jamono ji maanaam sénégalais yi sonn nañ ba mara détail yi nga xam ne moo nekk ci réew mi fu ko natt daan na koy kaay gi di Sud Quotidien nee Khalifa Ababacar Sall jamono ji ma ngi waajal li nga xam ne maanaam mooy élection locale yi journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom tim ñoo ngi waajal élection locale yi ndax amal nañu am ndaje ca ndaje moome nag daat nañuy wax ne jamono ji pare nañu ngir dem ci ay élection yéen a kaay gi di Vox Populi Moustapha Niass moom ay kàddoom bi mu ko yëkkatee dafa weesu sax li nga xam ne mooy élection locale yi ndax moom Moustapha Niass nee na ginnaaw bi nga xam ne moo ci topp bu ñu demee ca élection li ñu bëgg a gagné mooy 72 pour cent ba pare ñoom nee nañu yàkkamte nañ ngir dem ci ay élection locale Aminata Mbengue Ndiaye nee na Macky Sall moo tax jamono ji sunu xel dal na te benn bokk yaakaar am na doole pare na ngir dem ci ay élection yéen a kaay gi nee na assemblée bi nga xam ne maire yu benn bokk yaakaar doon nañu ko amal yuuxoo nañ fa yàq nañ fa musiba ak mbelengaana ki nga xam ne mooy Pape Amadou Sarr mi moom lañ dénk wàllum der bi délégation de l'entrepreneuriat rapide Khalifa Ababacar Sall nee na le pays est mal géré a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñi kii Mari ñoom nag demoon nañ ca Médina Wandifa waaye nag seen moom la ñu fa doon amal dañu ko nga xam ne mooy maire ba di Maala Seyni Fati maanaam moo fa yónnee ay bandi ay samba booy ngir ñu tas seen conférence de presse ba waaye nag accaparé gi nga xam ne ak njuuj njaaj yi nga xamante ni moom la fa maire ba di Maala Seyni Fati def loolu dañoo bëgg mu dakk ba pare di sàkk procureur mu daal di say dugal loxoom ak ñi nga xam ne ñooy waa Descos Guy Marius Sagna daal di wax ne hôpitalu Ziguinchor bi jamono ji askan wa nga xam ne ñoo fee feebar ca gox boobu maanaam hôpital bi leen gën a feebar Omar Seck deb expert financier nee na xaalis bi nga xam ne état bu Sénégal moo ngi koy wax ngir jàppale ndaw ñi du loolee mooy solution solution bi mooy wut ay stratégie yu baax a xool nan la ñuy gungee ñi nga xam ne ñooy secteur informel bi yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa docteur Djibi Diakhaté wax na ci force occulte yi wax na ci manifestation yi nga xam ne moo amoon ci réew mi wax na ci Fatou Samba Sall nee na Sénégal ba léegi lu jëm ci wàllum bokkaale gaay yi ñoo ngi ci ndax ñu bari dañuy jàpp ne nit bu ko dara dalee rek kenn moo ko ko